إلا الله محمد رسول الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول إله رب العالمين تعالى خدمك نادى يا رسول تعالى خدمك نادى يا رسول فلا أرى فقيرا إلى غير الإله تعالى Khadim. ginnaaw bi ñu leen nuyoo euh, ñu ngi taxaw ak kenn ci kilifa yi kër gi nga xamante ni mooy Siro di euh, Fall moom mu ñàkk bakkanam démb ci guddi ginnaaw combat Balla Gaye bi bi mu jeexee. alors tey dañuy taxaw ki nga xamante ni comme ni ma ko waxee mooy jëwriñu kër gi mais balaa ñu sore ci waxtaan bi ma koy nuyu bàyyi ko mu jóg ma internet yu euh, Feeling maa ngi lay waaw ku baax ñu ne ko Zalika yàlla na yàlla fa yólu bu jaar ñu ngi lay nuyu bu baax te di la baalu àq te di la baalu àq it te di wax euh, ci fii ñu toxaw nii muy quartier Ali kamara ñu ngi leen di xamal ne leen ne suñu waajur moo fi jóge démb di Sourodou Fall démb nag ci bi combat bi jeexee ci doomam ji naan Morgu Fall moom moo ñëw nañu suñu man fi yaa ngi toog julli ba noppi man ay combat duma ko seetaan ne lu dul mbirum suñ Tuubaa ñoruma fi ma toog ci buntu kër gi di wirdu ci la jógee ci kër gu màgga ci kër gu ndaw ga ñëw ci kër gu mag gi ne suñu waajur noppalu na ma ne ko yow da ngay wax mën a noppalu na biñ demee ñëw ci lañ xam ne noppalu na ne nag nekkul ne combat moo ko yóbbu suñu borom moo ko yóbbu suñ borom moo ko waaw man moom ci lu ma gis suñu borom moo ko yóbbu moom nag lu nekk nag ñu ngi ko ciy wax lu nekk ñu ngi ko ciy kii waa waana daal feebar na fi feebar boo xam ni mënoon na ko yóbbu te demu ci waana daal matal na dem na man daal loolu laa gis. alors ñu ñu ñu ñu bari dañ doon wax ni bi ginnaaw bi combat Balla Gaye bi jeexee dafa mbégte boobu noonu moo ko moo ko emporté maanaam mbégte boobu moo ko yóbbu daal ba mu am cardiaque ak yooyu. loolu am na wala waaw loolu moom wax dëgg yàlla bu ma la ci amee lu ma la ci wax rek moom weddi naa suñ borom. ne man fii laa toog ci buntu kër gi ne kër waajuram mu mag ak suñu daara ji ñuy jàngee xasida ak di ci yor xale yi di leen jàngal xasida ak waajuram wu jigéen ñoo jàkkaarloo ñu yor xale yi di leen ci tette ci liggéey Sëriñ Tuubaa doomam ji nga xamante ni moom mooy Morgu Fall moom la nekkaloon ci fiñ ñu liggéey woon wante kër gu mag gi moom mooy wetu daara ji bi mu jógee ci kër ga ñëw di yuuxu naan sama yaay dem na sama yaay dem na ma ne ko yow topp leen kii ba xool li muy wax lan la ci la na sama yaay dem na waaye nag ginnaaw combat bi moom ci la am waane nag bu ma taxawee na leen ci combat bi moo tax mu dem moom waxuma leen lu nekk waaye nag ginnaaw combat bi moom bi combat bi jeexee moom ci la dem moom. loolu daal moom mën naa ko cee seede ne man fi ma toog ci buntu kër gi yor sama kurus ne jël na ko jot na koo dugal ci oto ba yóbbu ko hôpital bi mu eggee ñu na ko ki nga indi mat na. waande wax dëgg yàlla moom bu ma leen waxee ne leen ne combat bi la wala ci ay bëgg-bëgg Balla Gaye bu ma leen ko waxee moom wax dëgg yàlla waxuma leen lu am. d'accord mais waa waa la lan lañ leen wax dañ leen wax ne mort naturelle la wala hôpital la leen wax. waaw loolu moom euh, doomam ji nga xamante ni mooy Morgu Fall mi ko yóbbu woon moom bu ngeen ko gisee dina leen ko leeral ne moom moo ko jël yëpp ko ci oto bi mu eggee ñu ne ko mat na ci la koy delloosi ci lañ ko dugal ci jàkka ji loolu daal laa ci mën a seede si kenn ku ci nekk boo faatoo sa loxo ndeyjoor ngay ngay tëree loolu laa leen ci mën a seede am na doomam ji fi nekk Ibrahima maay jiwrinam ak ñoom morgue Ibrahima. alors ñu ngi toog ki nga ñu ngi taxaw ki nga xamante ne moom mooy euh, taaw kër gi mu war si indi ay leeral euh, comme ni ma ko waxee sànq bëri ñu bëri di ci wax ay version yu wuute euh, ginnaaw bu ñu la nuyoo bàyyi la nga nuyoo mbokk internet. ah asalaamaaleykum wa rahmatullah bi ñu waxee xaalo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waa ñu ngi masow bépp dëkk dëkkandoo ci lii xew-xew waa démb ay boor 22 heures. waaw laa toog sama kër waaw maire bi yónnee benn sëtam mu woo ma xam ne ne Sirodou Fall dafa noppaliku Sirodou Fall na kenn la woon ci kër gi ndax maire bi ko yar depuis deux ans bi ma amee deux ans tout tànk lan ko ko jox mu yar ko muy mbokkam bu jegeñ nekk taawu kër gi. man kóllëre ma moo bàyyi ci kër gi ndax Omar bu ndaw ku nekk xam na ko ci milieu sportif mooy sama waay boobu ba léegi nag maay taawu kër gi xew-xew yi fi am man la ñuy woo daanaka maa koy jiite nekk ci waaw. liñ ci wax daal loolu la dafa ko piqué crise ci combat bi en jubilant rek mu dal noonu la ñu ko dugalee ci kii bi waaw. d'accord daanaka dafay xaw a dëggal li ma doon wax sànq mooy ci mbégte maanaam bi combat bi amee ndax ñuy wax ni supporter supportrice bu Balla Gaye la woon. Mm-hmm. donc bi déggee ni Balla Gaye daan na daf doon kontaan di jubilé. ci loolu la amee cardiaque daal di ñàkk bakkanam donc loolu mën nga ko dëggal. dëgg-dëgg parce que daf ñu ko yàgg woon. du léegi moom buy supporter Balla Gaye day mel ni xale bu ndaw bien que élevage les cent ans. suy supporté Balla day mel ni xale bu ndaw day day day day tëb day trak di afale di. déroulement combat bi bu jàppee mu yuuxu bu jàppee mu yuuxu donc bi Balla gaay moom dafa amoon d'ailleurs avant tout dafa amoon AVC bu ko attaqué woon bu yàgg dafa naa ci loolu daal la jóge waaw noppali ko def crise cardiaque bi mu daanoo crise ñu jéem ko évacuer far entre temps mu décédé quoi lii moom lu ma dëggal la lu ma confirmé la waaw waaw. est-ce que jege ngeen peut ñu jege Balla Gaye wala famille Balla Gaye parce que comme daf supporté supportrice am la. donc normal na Balla Gaye ñëw jaale si ko. est-ce que jéem ngeen a jege Balla Gaye wala est-ce que Balla Gaye jàpp ngeen yëg na mbir mi. effectivement démb bi ma yëgee mbir mi ba ñëw tiim ko ñu yóbbu ko ci morgue bi dama woo Andaw Andaw mu ngi nekk ci biir Balla Gaye ma woo Abba Sall un ami. de longue date ñoo nekk fii moom sunu kóllëre la ci kër gi ma woo leen xamal leen ne Sirodou Fall dafa gaañu ndax moom dafa yàgg bëgg Balla Gaye daka daan wane comme xale bu ndaw di yuuxu ko tëb moo gaañu mu ne dina ko wax Balla dina ko wax andaw xam naa lu ci am rek dinañ ma ko wax boobu ba léegi daal dégguma ci dara waaw waaw. nga ko mujjee gis moom. moom démb su le matin. waaw man j'avais l'habitude bu may dem école. wala may dem aux abords laa le matin laa ko fekk mu sol tout de blanc vêtu dafa ma tàmm tooñ nag Kader kaay fi yow kaay jox ma dara nangam sangam mu ngi sol ak kaani ci suba si tout de blanc vêtu daanaka boobu laa gëj a gis quoi waaw. lan ngay ngay ngay fàttaliku si moom si dundam loo xamante ni boo ko fàttalikoo doo ko fàtte daal maanaam bu sa xel demee ci loolu doo ko fàtte. moom moom moom moom vraiment sunu xarit la bon ñun xaritu Omar bu ndaw yi daan nekk si kër gi ci plan sportif yi daf ñoo miin dañoo yar fekk suñu démb d'ailleurs buy toog sax loolu lay rappelé wu. chaque jour loolu la ñuy rappelé suñu xalek ak suñu ndaw yenn saa yi ñu ne ko suróodu eh ñun ay mag léegi kilifa la ñu bàyyi li ñuy def. waaw mais moom elle ne cesse de répéter suñuy ndaw rek lay nettali di reetaan ko vraiment ku ku jovial la woon ku baax la voilà ku jovial la woon ku baax la waaw ku ku sàmm kóllëre tamit waaw ku yaatu tamit yaatu uuf njabootam vraiment ku baax a baax daal moo dem nii jàmbaar dëgg moo noppaliku waaw. jërëjëf waaw. ñu sant bu baax a baax. di leen masawu di bi yàgg. amiin amiin amiin amiin amiin amiin. ci jàmbar ñu a ñàkk bàyyi mu uuf daj ju ne ci daj ju ne ñun dëgg-dëgg ba noppit maanaam mu doon mu doon waajur waajur waajur mënoon kaf mu mënoon a ree ku boole woon ñëpp ñëpp nag waaw bàyyiwul kenn amul xale amul mag amul ndaw. waaw ñëpp la boole woon uuf dëgg dëgg ku baax la daal waaw parce que wax sa wajur it dafay xaw a metti day xaw a metti mais jàmbaar la woon jàmbaar dëgg dëgg la woon daal dëgg dëgg waaw jàmbaar. ko mujjoon waxtaan. démb rek démb gisee nañ ma koy tooñ. ndeysaan mu tàpp ma ne ma waa dama utal ma ay ginaar ma dem ba ci guddi gi. sama xel mi ne man yar ah man ne sama yaay wax na wax na mu utal ko ay ginaar xaaral ma utal ko ginaar moo ko utalee ginaar dem naa ba ci ki may jaay ginaar yi ba jël ginaar ma téléphone dama wàcc na liggéey waaw ma dëppaat ma dëppaat ma dëppaat daal di ñëw ma dëppaat daal di ñëw bi ma ñëwee nag ne ne lan moo xew lan moo xew ñu ne ma ñu ne ma dafa mel ni daal bi chute bi amee ak ni mu wàccee liggéey benn la man leen ah ñu ne waaw. après ma après ma daal dem après ci yàlla laaj na ci la ma sama rakk ne moom daal moment bi Balla Gaye di bëreet ak ni combat wax bi diir noonu waaw xool na ko stress te moom aussi noonu la mel ci moom daal noonu la mel ci moom ne na ko sonal daal muy muy ne ci néeg bi di di kii di kii waaw mais bi si bi amee daal daanaka ci la wàcc liggéey daal moom. bi mu bi mu daawoon noonu du dugaatul ba nii naa ne arrêt arrêt doon. waaye aussi na na ki na ki doon bëre xam ne du ci dara bakkan moom fu mu war fu mu war a tee fale rot ki doon bëre du ci dara du ci dara ndax bëgg moom yàllaa koy def bëgg yàlla koy def xëy na suñu borom moo defoon rek mu bëgg bàlle ci xolam loolu yàlla koy def waaye nag demam gi du ci dara moom du ci dara dara dara dara dara ndax yàlla sàkkee bàll fekk bëgg nag suñu borom def nit bëgg nit a rek tax loolu moom dafay am loolu de am waaye nag suñu borom moo yor bakkan mooy xool waxtu ko neex mu daal di koy jël. waaw loolu lool loolu kese la ñi sant ñëpp it nag ñi sant ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waaw ñi fi ñi ci jàpp ñëpp daal mbokku taalibe yeeg maanaam mbokki koñ beeg imaam yeeg daanaka am xaalis amul solo amul nit ñi moom solo waaw dëgg dëgg nag ñëpp jàpp nañ ci bu baax a baax a baax a baax a baax waaw mais mbër miit na xam ne du ci dara daal na xam ne suñu borom moo ñëw moo ñëw ko dogalam daal moo ñëw ko dogalam jaajëf waaw moom nag mu ngi tudd Aïssatou Fall waaw am na am na am na soixante na soixante sept waaw Aïssatou Fall waaw laa ilaaha illallaah muhammadur rasuulullaah allaahu laa ilaaha illallaah محمد رسول